ginnaaw bu ñu sante yàlla yàlla mu màgg moomu di ko tuubal te di ko wax ne yow rek mooy yaay sunu buur di ñaan mu jéggal nu bàkkaar yi nga xam ne moom la nit ñi gis ak yi nga xam ne moom rek moo koy gis di ko seereel ne li mu yónni yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam loola lan fas yéene ñaan sax ca ba fa ba bañuy dem ca bis bu mag ba ñoo ngi ñaan borom bi mu julli ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak i saxaabaam ak i ñooñu ñëpp ginnaaw loolu nag ginnaaw bi ma dénkee sama bopp maa ngi leen di dénk ak ragal yàlla li nit di gën a am gën a am mu amal ko njariñ ëllëg mooy ragal yàlla mooy li nga xam ne itam fu waay egg ci kawe moom rek moo la fa mën a yóbbu beneen leneen mënu faa yóbbu askan du la fa yóbbu alal du la fa yóbbu daraja du la fa yóbbu bokk yi nag dafa mel ni fan yi ñu toll ñu ngi dund ba tey ci njëlbéenug at mu bees mi ginnaaw bi nga xamee ne am na genn benn at bu jàll ci sunu dund at benn at boo xam ne am na ay mbégte yu nekk ca biiram waaye am na ay metit ak i coono yu baree bari yoo xam ne ëmbaale na ko bokk na ca nag boo xam ne ba ndëgë ni ñu ngi koy dund muy tiis bi nga xam ne daa daj àdduna bi yépp soppi itam lu baree bari ci ni nit ñi doon dunde kon li ñu def lu dul ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu yëkkati ko ba mu xeet wi yépp mucc ci waaye doomu aadama yépp sax ak àdduna bi yépp mucc ci te mooy li ñuy wax covid 19 bi bokk yi nag sunu dee xool at mi jàll daf nuy wan ne bis yi daal ni muy jàlle ni muy gaawee ëpp na guddi yi ni muy gaawe ëpp na ndax sax duñu wax ne weer yi ak at yi ni muy ni muy ni gaaw na lool kon nag loolu day wane rek ne ki ci yàlla defal tawféex mooy koo xam ne tey jii bàyyi nga xel ne bis yi gaaw na guddi yi gaaw na weer yi gaaw na at yi sax gaaw na bu ko defee nga daat ne kon nag ren ren jii dey ak li ci sama kanam fas yéene na maa góorgóorlu ba nga xam ne fee ma jëm ndax ginnaaw fii ab rombukaay rek la ndax ni mu gaawee boole ci gaawaay bi am na foo xam ne fa laa jëm te du fa jóge bu ma fa àggee kon nag naa gaaw wut yóbbal bu doy boo xam ne su ma àggee dana ma jariñ foofa loolu moo tax al abdul xadim di wax ne ci boo demee ci téere bi ñuy wax ma masalikal jinaan nee na dun àdduna bii nga nekk soo bëggee xam mook alaxira noo ciy doxe nee na bu benn bu ci nekk da ngay xool ba xam diirub ba nga fay am nu muy toll bokk yi koo xam ne dañ koo wax ne ko dangay ngay waaj ab tukki boo xam ne da fa def at ak tukki boo xam ne benn fan nga fay def ndax yóbbal bi mu war a yóbbu ñoo war a tolloo duñ warunoo tolloo loolu ci misaal rek mooy diggante àdduna ak alaxira koo xam ne àdduna ay fan yu néew nga fiy def alaxira ay at yu dul jeex la kon waroo sàggane ak sa àdduna si kon lépp looy def na ca sa ëpp li ëpp say waxtu li ñu ciy def na doon loo xam ne lu la amal njariñ fële la waaye bul jël sa wax yépp def ko ci fii nga xam ne danga fi romb rek jàll loolu moo tax euh, bu at mi jàllee ñu dugg ci at mii jaadu na ñu taxaw ak sunu bopp xoolaat sunu bopp kenn ku nekk ci noonu na taxaw ak boppam euh, euh, bàyyi xel nafaraat ak dundam def taxaw seetlu ci boppam ana lu awut yoon nga jubbanti ko ana lu aw yoon nga fas yéene koo dolli kon loolu at mu jeex loolu la war a tekki loolu la war a jariñ li muy war a jariñ mooy nga xam ne lu sa dund rëy rëy am na at am na at yu ci manqué am na at at manqué na ci léegi kon day gën di manqué rek bis bis bu bis bu jàll xamal ne manqué na ci sa dund kon mbokk yi dafa mel ni nag ñu baree bari ci ñun dañuy faral di fàtte ñenn ñi nga xam ne xëy na bu weer wi bu at bu weer wi duggee di weeru muharram daa am guddi gu ci nekk goo xam ne berne yi ci nekk daa am ñoo xam ne daf leen a jàpp ba da leen di fàttewoo xew-xew bu mag bi xew ci bis ci ci weer wi li tax ñu jàpp at mii dafa am lu tax xew-xew bu tax waaye léeg-léeg am ñoo xam ne bu ñu nee weer wi dugg na rek la seen xel yépp di nekk mooy guddi googee ak berne yi ci am ba tax jàngat bi ñu war a def ak yëg-yëg bi ñu war a am ci ah ci weer wi duñ ko am te dafa am lu xew lu am solo nag lu ci xew loo xam ne moo tax ñu sàkkal ko date ko ci mu doon am atu julit loola mooy gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk yi gàddaay googu dafa soppi lu bari ci histoire dafa soppi lu bari ci doxinu lislaam dafay wane ne am na ñoo xam ne jaayante woon nañ jaay seen àdduna jaay seen bakkan ngir yëkkati lislaam day wane ne am na ñoo xam ne lu ne daj nañ ko ngir muñ ngir lislaam ak ci noonu tey jii bokk yi day wane ne am na ñoo xam ne la la si pexe yi noonu ya doon bari lépp la seen kàttan doon bari lépp jëloon nañ seen mbir wéer ko ci yàlla xam ne moom rek ay buur te moom bu la nee jaaral foofu bu la jàppalee rek kenn mënul ci yow dara kon nag bokk yi xew-xew boobu dafa jar di fàttaliku bu baax a baax su ñu waxee tam xarit mi ngi li muy tekki mooy weeru tam bi wala at mu bees mi bokk li muy tekki mooy at mooy xew-xew bu mag ci lislaam boo xam ne ba ba saxaaba yi toogee dañoo gis ne amul xew-xew bu gën a rëy ci lislaam ba tax na lu ñuy tënk nañ ko tënk ci xew-xew boobu mooy gàddaayu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam kon bokk yi nu bëgg a nafar tuuti ay bind yoo xam ne lu mu gàtt-gàtt war nañ koo jariñoo ci xew-xew boobu bokk yi bind bi ci jëkk mooy lan mooy wane ne eh, dooley lislaam doole yi lislaam ak sunu doole ñun jullit ñi nañu xam ne ci ñaari baat la tënku bi ci jëkk mooy lan mooy wéetal yàlla nangul ko fu mu joxoñ nga jëm foofa fu mu tere doo fa jaar mu jaral la lu nekk itam nag waaye ba ca tegee nag mooy nun ñi nga xam ne ñoo bokk nangu loolu nan boole sunu kàddu muy benn ñu bañ di juyoo bañ di xëccoo ndax waxoon nañu buur bi waxoon nañu ne su ngeen ko defee da ngeen di néew doole kon nag bind bu am solo la ñu bàyyi ko xel beneen bind bi ci des nga xam ne mat naa bàyyi xel mooy ndekete gëm yàlla lu mënut amut bokk yi gëm yàlla gu dëgër amut lu mënut day tax nit ki wóolu yàlla ba li muy jànkoonteel ak li muy jàkkaarloo lu mu metti metti ak lu mu diis diis rek moom du xool lu dul xam na ne yàlla mi ko dig moom mu day teg bëtam rek ci la la ko yàlla dikk xam ngeen ne loolu moo mën a waral nit koo xam ne ay noon dañ koo jàpp taseeg moom ca jeewal takk yor seeni xare yor seeni jaasi ëpp ko doole mook ñi ma àndal ñëpp ci saaxir waaye muy mën a wax ne man dey maa ngi nii ñu bari ñu ma àndal ñi ngi jàpp ne man damay dox waaye man fi may dox jëm ci yàlla rek laa jëm jëm ma fudul ci sama borom ñoom ñi jàpp nañ ne dañ maa jàpp jàpp nañ ne ay prisonnier laa waaye man xam naa ne ci yàlla rek laa jëm ndax li ko waral mooy dafa teg bëtam ci li nga xam ne mooy li ko yàlla dikk moo tax gisul coono yi ak métit yi nga xam ne moom moo nekk ci kanamam bokk yi beneen bind bu am solo boo xam ne mat naa jàng ci gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa mooy bi bi jullit ñi gàddaayee ba ñëw gàddaayee Makka ba ñëw a wara fekk fa seen mbokk jullit ñu ñu ñu ñu leen tuddee muhaajiriin ñi ci des ñu tuddee ñu leen tuddee ansaar yàlla tagg leen fu nekk nag ci alxuraan. ñooñu yàlla def leen a tagg wane na nag lu waay baax baax moom ñooñu kenn mënu ci leen a dab kon nag loola ñooñu noonu la ca gën a am solo mooy taxawaay ba nga xam ne seen mbokk yañ fekk si woon na xam bu leen fàtte ne ba ñuy gàddaay di dem dañoo bàyyi seen i kër bàyyi seen i alal bàyyi seen juddu bàyyi seen i mbokk bàyyi seen lépp dem foo xam ne ay doxandeem lañ fa te yàlla rek tax yàlla jaral leen ko nag bañ ñëwee ñu fekk fa mbokk yoo xam ne itam jikko yi lislaam wax ne moom la ak jullit war a mbokk jullitoo moom la war a jikkoo digganteem ak mbokkam fekk fa ansaar yoo xam ne ñoom ñoo leen gënal seen bopp yàllaa ko wax ci alxuraan nee na ñoom àgg nañ ci suñu amee benn dañ koy jël jox ko muhaajir bi te ñoom ñu ñàkk loolu jikko yu rëy rëy la yoo xam ne ah, yu mat a bàyyi xel la yoo xam ne day wane ne warees na ko jàng nun jullit ñii dem ci xew-xew bi buñ koy fàttaliku tey beneen bi ci mujj bokk yi mooy ndaw ñi xew-xew boobu dafa am solo ba nga xam ne ndaw ñi dañ cee jouer ay rôle yu am am solo ndax sunu sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi mu àndee xaritam bi ba dugg ci xunt mi ngir làqutu noon yi te am fa ay fan ñi ñi ko doon indil ñam yi ñi ko doon indil naan yi jigéen ju ndaw sax bokk na ci waxuma la ay ndaw waaye jigéen sax bokk na ca waaye ay ndaw lañu woon yoo xam ne ñooy indi loolu bu guddee itam ñooy indi xibaar yi wax leen di xool fu noonu yu nekk te ku ne xam ne lu ne mënoon lu leen caa fekk kon loolu day wane ne ndaw lislaam wërta yaafus wërta des ginnaaw ndax ñooñu ñooy ay royukaayam te ñooñu loolu lañu wane ñi ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu jéggal nu te jéggal ñi nga xam ne ñëpp ñooñu jiitu woon ci diina ji te mooy ña ca jiitu mooy saxaabay rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba ci sunu mag ñu baax ñu ne fii yàlla nañu yàlla jéggal te jéggal leen waaye ñu ngi ñaan itam borom bi subhaanahu wa mu def ci sunu xol cofeel ñu bëgg jullit ñëpp waaye rawatina nag mag ñu baax ñooñu yàlla bu yàlla def ci sunu xol ñu dina ëmbal ak noonooy bokk yi ñu ngi ñaan borom bi ginnaaw dund moom fokk day am fu muy yem ñu ngi ñaan jëf yi ñuy jëf yi ciy gën yàlla na doon yi mujj ci sunuy jëf sunuy dund li ci gën yàlla na doon fan yi mujj ci sunu dund ak fan yi mujj ci sunu dund yàlla na doon fan yi gën ci sunu dund sunu tey yàlla na gën sunu démb waaye sunu suba itam yàlla na gën sunu tey sunu borom lañuy tàllal sunu loxo di ko ñaan di ñaan itam mu dëgëral lislaam ci kanam noonu yépp waaye mu mu dëgëral itam sunu xalifa bi yi nga xam ne moo fi nekk di Cheikh Mouhamadul Mountakha sunu borom dolli ko ndimbal te boole ko ak ñu baax képp kuy baax na la yàlla xiir ci moom nga ànd ak moom ba li muy liggéey ni ko yenant bi sallallahu alayhi wasallam waxe woon ni ko yàlla borom bi waxe woon nee na ko woon huwa alladi ayadaka bi nasrihi wa bil muminin yàlla su la jàppalee it nee na da caa boole nag boole la ak ñu baax ayadaka bi nasrihi lu mu la jàppalee te ndimbalu yàlla ku ne xam ne doy na waaye nee na fokk nga am ñu baax nag ñoo àndal yàlla na ko képp kuy ku baax rek yàlla na ko yàlla booleeg moom ba li mu sumb mu àggal ko waaye loolu it yàlla na ko yàlla defal mboolem képp koo xam ne yaa ngi liggéey ci tollu lislaam bi ak foo man a nekk ak jamono ju mën a doon الحمد لله الملك القدوس السلام مجري الأيام والليالي ومجدد الشهور والأعوام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة أيها الإخوة من دروس الحجرة النبوية التي يجب استخلاصها منها أن عز الأمة تكمن في تحقيق كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة عليها وثاني هذه الدروس أن قوة الإيمان تفعل الأعاجب وتجعل المؤمن صادقا في الثقة بالله والاتكال عليه والاتكال عليه ويصور هذا المعنى البيت الذي أنشده عبد الله وخدم رسوله وهو في قبضة المستعمر الطاغي أسير مع الأبرار حين أسير وظن العدا أني هناك أسير ومن هذه الدروس أيضا أن أخوة المهاجرين والأنصار لدرس بليغ في التضامن والأخوة الإسلامية ومن هذه الدروس أن دور الشباب مهم جدا في هذا الحدث وهي الهجرة النبوية الشريفة الأمر الذي يجب أن يذكر الشباب بأن لهم دورا رياديا في خدمة الإسلام والمسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها wa xayra acmaarinaa awaaxiraha wa xayra ayyaaminaa yowma nalqaak allahuma ijcal xaadiranaa xayran min maadinaa wa mustaqbalanaa xayran min xaadirinaa innaka xayru mas'uulin wa xayru ma'muul allahuma aciz alislaama walmuslimiin wa aydid xalifatana arraashid muhammad almuntaqa binnasri waltawfiiq bilmuminin wa kulla man yaxdumu alislaama wa ahlahu fi kulli zamanin wa makaan allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatix lima uxliqa walxaatim lima sabaq naasir alxaq bilxaq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم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 laa ilaaha illallah allahu akbar allahu akbar alhamdulillahi rabbil aalamiin arrahmaani arrahiim maaliki yawmi ddiin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 wa annakum ilayna la turjaun fataala allahu almaliku alxaq la ilaha illa huwa rabu alarshi alkarim wa man yadcu maa allahi ilahan axara la burhana lahu bihi fa innama xisaabuhu cinda rabbih innahu la yuflixu alkafirun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 الله Allah assalaamu aleykum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 man da alladi yashfau indahu ila bi idnihi yalamu ma bayna aydihim wa ma xalfahum wala yuxituuna bi cheyin min ilmihi illa bima sha wasia kursiyu samawati wal arda wala yauduhu xifduhuma wa huwa alaliyu alazim bismillahi arrahmani arrahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi arrahmani arrahim qul audu bi rabbil falaq min charri ma xalaq wa min charri gaasiqin ida waqab wa min charri nafaathati fi l uqad wa min charri xaasidin ida xasad bismillahi irrahmani irrahim qul audu bi rabbi nnaas maliki nnaas ilahi nnaas min charri alwaswaasi alxannaas alladi yuwaswisu fi suduri naas min aljinnati wannaas ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار allahuma salli ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa asim abdaka wa xadima rasulik min kulli ma yasuuhu aw yadurru bi qadri azamati datik wa kun lahu bima yasurruhu wa yanfauhu wa la yadurru fi cheyin ma ila duxulihi aljannata allati wa'ida almuttaqun amin ya rabbal alamin allahuma salli ala sayidina muhammad salatan tamxu biha kulla ma sadara minna mimma yuxaalifu ridaak min waqti wiladatina ila wafatina wa kaffir anna tabiatina wa duyunana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 amin ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin